sant nañ yàlla nag ndax bi ñu gisee ni ko adduna bépp dunde ak noonu xam ne mbir mi mbirum lislaam la du sunu mbir loola tax na dafa mujj daa woyof ci noonu tooy rawatina it nag gannaaw ay taalibe lañ dañ am kilifa eh, sun kilifa itam yëkkati ci kàddoom wax ca amatuñ te ñun booba lu ñuy wax. defe naa ne coow lu ne dégg nañ ko fi ci njaañ waaye doo gis firnde. ndax tolloo na nit bu amee mbégte faaw mu réagir bu amee naqar faaw mu réagir ndax yonent bi nee na woon ku dul mer doo ab dulit kuy mer te doo ko bàyyi saytaane nga ñaar yooyu nag dara dalul ñu sant nañ yàlla nag bi nga xamee dem nañ ba bis bii ñu fekk ko mooy bis bi nga xam ne toog nañ ci ëttum Njaañ yëg ne bàyyi nañ Seexuna Géey mu dellusiwaat ci liggéeyam ndax loolu képp mooy li ñu ñoroon te am na ci jàmm ak dal mu mel ne tey كان كنا خمنا بدون دك بي دك بام كلفة ولا مي خ نجيب أقول يار دي في جيب أي كاد يوم أنا جاها سأ أبدك سرط ديك أنت جت هذا دوني جانكو كي ديك تربينال دي دوني جانكو كذي واي تاي جيس غني لوليب نانكو دون لخدمة مول نونا نهدفنا أنا بقول مش تاي تاي مو أب ما فنان كرب دونت لي نيجيل تكاي تام بنك جيل دون فن يكون وقت أنا وانا كبار نكبنا نخاين لي بيتون أنا بيتون waaye far sëñ bi ndigal li mu joxe woon tey gis nga njaañ ñi ëpp ci ñoom demoon ñu ngoon fii ci kanamu sëñ bi ànd sëñ bi toog di jàng alxuraan ak xasida di déglu ndigal li nga xam ne moom la sëñ bi joxe ak lay juddoo foofu sant nañ yàlla nag bi nga xamee ne dafa juddoo doon na loo xam ñun ñëpp moom la lañ doon xaar day ñaan yàlla na fi yàlla euh, rendee seytaane soosee mu yem fii nag ndax nit bi fekkee dafa bokk sa njaboot am benn xew-xew boo xam ne atte boo xam ne am na te ëllëg mën na ko laaw defe naa ne li gënoon rafet mooy nga teel a jóg sensibilisation dem ba ci ñoom jaxasoog ñoom bañ xam ko bu ba ëllëgatee comme ci dal nga mën kon lii doon bañal waaw soo leen bàyyee ci noonu rawatina ñoo xam ne dañoo jàpp ne yéen li ñu nekk euh, bàyyiwu wuleen ci xel soo demee ba loolu am te nga ñëw rek ne ko nag li nga def yoon da ko bañ ñi ëpp ci ñoom dañuy du bañ yoon yow yaa am loo galgal yooyu def boo xoolee loolu mu andi diggante ak seen nag loolu pour mu gaaw a dañ du yomb mooy lii nii mais amul benn nit koo xam da nga nekk ci am réew loi am réew wàcc nga di ko bañ ndax xam nañ yoo xam ne dañuy jékki-jékki waate ko dañ koy waate ña koy ña koy yëg ñoo koy yëg ña koy xam ñoo koy xam ñi ko xam ñoo ko war a xamal seen njaboot gi xamut ëllëg mën leen loolu rek mooy seen gis-gis bañ dem ba xam ne dañ ko xam ñëkk fa mais dugg ci seen loxo faaw wax lu ko fa ngeen nangu ko wax day mel tey Cheikh naa koy wax loo nekk ne ko neel xaw ma maa ngi jéglu su ko nangu woon wax du fa génn moo tax ñun ñu nangoo def loolu mais jàpp woon ne bi buñ koy def jubluwuñ ci woon bund xatal xale yi jubluwuñ ci woon turtil ñoom xam nañ loolu léegi nag lii bu fekkee ne jamono da koo romb man mi xam ne maa maa la maa la gën a yeewu ci jamono dama laa war a yee su ma la ci yeewoon nag bu ëllëgatee loola ca dal day mel ne maa lay tooñ fi mu toll nii saa bu ñu déggee état ak daara rek dama dégg ne jàpp na sëñ daara mais benn yoon boo xam ne sensibiliser gu nañ sëñ daara yi ndax loolu dès le début la woon loolu la bëgg a wax xam nga tey bu fekkente ne ba àtte ba xawee rek ñu xam ne lii kat ndax day mel ne loi boobu du Sénégal ñoo ko woote ci ca kaw la jógee ba na leen li ñuy wax nation soni ñu nekk ci biir dèjà ñoom bu ma xamee lii sama njaboot gii kat lii kat man daara ci sama ci sama xaal samay xaal la bokk sama système éducation am na ci lu ci nekk loo xam ne ëllëg euh, droit de la femme mën na leen condamné loolu damay fexe bañ bañ teel ko cee génne su ma defee comme wax ak ñoom bañ daara yëpp xam ne état bi def na lii awar awar ci euh, avertir na leen su la dalee da nga xam ne commission ba ma yebaloon kat lii laa doon bañ xam nga loolu alerte la